Voilà. Euh, monsieur le maire. à la presse directement. Nous, nous sommes de la Médina. Nous n'accepterons jamais, certes, nous sommes des politiques. Nous sommes favorables au moins à la démocratie sénégalaise. Mais nous ne sommes pas d'accord pour des gens qui viennent piller dans notre commune. Pour des agresseurs ou des gens qui viennent piller dans notre commune, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi les jeunes de la Médina sont venus défendre le champ. Parce que beaucoup de jeunes travaillent dans ce les impôts des magasins là, des Chinois et autres, c'est ces impôts-là. Nous, sommes d'accord, nous soutenons Ousmane Sonko, certes, mais nous sommes pour aider euh, pour venir voler à la Médina. Donc, wax ji mooy ñun bu dëgg résistance civique boobu ñun ñu ngi ci biir ñu ngi jàppale Ousmane Sonko ñu ngi koy d'accord nañ ci li mu nekkee parce que dañ pour ñun dañ koo tooñ waaye tamit du tax tax xale yi Médina yi taxaw ni d'accord nañu ci démocratie waaye duñ ci bañ kenn muy profité di daj yàq suñu liggéey nañu bàyyi commerce yi ubbi nañu bàyyi dem beeg dëkk bi fluide mën nañu nag taxaw kaas suñu démocratie mais càcc gi ci rax ak agression beeg loolu lañ dul nangu moo tax waa Médina taxaw nañu ànd ak force de l'ordre yi pour dire non. merci beaucoup monsieur le maire kon monsieur le euh, moo doon wax noonu li mu.